Euh, cas boo xamante ni euh, peut-être xam na euh, caractère voilà lu mu tudd anticipé bi nga xamante ni mooy élection législative yi am moo tax ba yenn yi ba mujj ñu ko def ci ay réformes mais euh, Moustapha est-ce que waruñu dem ba euh, quand même euh, élection législative ñu tënk député bi mu bañ doon koo xamante ni dañuy jël Pape Makhtar parce que tout simplement am na tour mu dem élection bu nekkee député mu démissionné bàyyi benn Georges Nessa bi nga xamante ni voilà amul amul woon possibilité dem élection bu nekkoon en tout cas dem assemblée bu nekkoon moom moo jiite woon liste yooyu. malheureusement ni nga ko waxee noonu la amee Pape amuñu woon temps wu def réforme yi certainement. mais yooyu bokk na ci réforme yoo xam ne war nañ ko intégrer dans l' avenir oui. que booy élire un député mhm. mu leer ne Pape Makhtar mii ngay élire il va siéger à l' assemblée mais soo xoolee législature bi ñu jàll mhm. jour bi ñu koy tijji mhm. y avait beaucoup de ministres du gouvernement de Macky Sall yoo xam ne ay député la ñu woon bañ doon wax ndax ministre député mënta nekk mu juróom fi benn débat euh, tey jii nii le premier ministre Ousmane Sonko qui est tête de liste il s'il est élu député il sera premier ministre et député pour quelques jours pour quelques heures je n'en mais il sera premier ministre et député mais loolu yàgg na Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne bi muy diriger les listes euh, de Benno Bokk Yaakaar en 2017 je pense 2017 parce que 2022 c'était Aminata Touré il était premier ministre dañ ko élire député mu nekk premier ministre je pense que yu jar a waxtaane la boo xoolee même dans les listes yenn kii yi même dans les départements ak yooyu. Mhm. Euh, da ngay gis ñoo xam ne dañ leen investir mais tu te dis quelque part que ñi seen tour moo tax ñu investir leen mais certainement duñu siéger ci assemblée. tey jii nii boo xoolee les listes euh, nationales la am na ci ñoo xam ne. da nga ne Macky Sall moom kenn xalaatul mu dem. Macky Sall euh, ne siéger ji oui. Macky Sall non il est capable tout mais Macky Sall viendra pas à l'Assemblée je ne pense très sincèrement yaakaaruma ko. Mm. Euh, boo ko élire député aussi da nga koy élire député pour que après mu jox place bi keneen. Euh, bul fàtte ne euh, ndaw si daan nekk ci assemblée. ba turam siiw lool di Koura Macky. bi ñuy élire député bokkul ci ñi fal. il a fallu que Soxna Dieng Mbacké démissionné pour que mu ñëw jël place bi. Macky boo ko élire député il sera certainement ne diw moo koy remplacer euh, ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen mhm. man je me dis quelque part sax ku mel ne Khalifa Sall li mu def baax na ah. mhm. Euh, bon il n'est pas candidat oui. oui il n'est pas enfin euh, ci liste yi ma gis il n'est pas candidat et dem euh, voilà ku nga xam ne kuy fal député di nga xam ne tey Barthélemy Diaz nga fal ak mm-hmm. diw ak diw ak diw ci liste boobu pour man c'est pas une mauvaise chose mm-hmm. est-ce que quand même du fausser le jeu démocratique euh, Georges Nessa bu nekkee ñu ñuy jiital di leen def ci liste yi bu ñu leen falee dañuy démissionner ci saa si indi ñeneen ñoo xam mais je crois que même en je pardon euh, le Atal là euh, il était candidat Atal je pense qu'il était candidat ci législative yi ñu je pense qu'il était candidat. bon euh, il était parce qu'il siège à l'Assemblée actuellement. Mm-hmm. waay xam le problème ce n'est même pas un problème de démocratie. Mm-hmm. mais c'est un problème de détournement de vote. oui xam pourquoi c'est un détournement de vote. Mm-hmm. c'est-à-dire que la personne bi nga xam ne moom la ñu investir dans sa localité. parce que sur les listes parce que dañu jàpp ne kii il a les moyens non seulement il est connu mais il a les moyens les moyens financiers laa la wax de maanaam bu campagne bi nar euh, laaj xaalis moom au lieu muy dem di laaj parti moom mooy génne xaalis si poosam di investir di luy ay otom di def le tour de de son département de sa commune pour se faire investir. Mhm. maintenant s'il est investi député. Euh, mu cède place am à quelqu'un d'autre c'est là où on trouve le détournement du parce que certainement les populations. qui ont voté pour lui ont voté pour lui sur la base d'une de de de relation de confiance et tout maintenant bu nekkee il ne siège pas ñu indi keneen koo xam ne c'est un inconnu <coughs> loolu loolu ça pose problème. Mm-hmm. te souvent ñu ngi ñu ngi koy remplacer sax comme ni ko Moustapha rappelé euh, sama classe gi lay doon ay euh, xulookat. yu ñu voilà bon d'habitude bon il s'arrange pour trouver quelqu'un boo xam ne il va faire il va faire l'affaire. maintenant pour les ministres. loolu c'est c'est que c'est le le règlement intérieur de l'Assemblée nationale c'est bien écrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme mënoo nekk ministre nekk député c'est c'est c'est un problème d'incompatibilité maintenant il, le député il peut être maire comme d'ailleurs y a il beaucoup de députés maires si législature yi passée mm-hmm. mos na toujours d'ailleurs depuis toujours mais c'est bon quand même euh, ñu dindi ko ñu ne voilà par exemple c'est que c'est un de fonction boo xam ne effectivement, ça peut créer des frustrations au sein des partis politiques. Parce que c'est comme si, il bi a pas quelqu'un dans son département ou dans sa commune qui peut jouer le même rôle. Donc, euh, ñu nous élire le maire dans ta commune, nga promettre que leen allons liguer se commune bi pour mu dem faire ce subitement tu deviens député tu laisses la mairie nga ne bon voilà wala nga bàyyil mairie bi sa adjoint bi nga xam ne moo fay nekk tu continues à être à l'Assemblée nationale nekk Dakar di di def leneen loolu aussi ça ça ça porte préjudice aux populations te def si bëri d'ailleurs y a des gens yoo xam ne dañ lay wax le l'expression bu ñu naan le maire absentéiste bi nga xam ne kenn du ko gis wala boo koy gis si mairie bi c'est pour voter le budget wala une fois mois une fois tous les mois donc ça c'était une bonne chose quand même que Pastef joxe le joxe ce bon exemple là en enlevant presque tous ces gens parce que ñi may gis ñu invertir en tout cas si si biir liste Pastef bi bëriwul ñi sa xam ne dañoo nekk maire et nar nekk député en même temps mhm. Mhm. en dehors de le comment il le maire <laughs> ma ne le maire de Louga le ministre euh, El Malick qui est ministre et qui est qui est tête de liste je suppose également que c'est un cas particulier parce que certainement boo demee à Linguère à Linguère je ne vois pas un autre responsable de PASTEF connu ou bien plus connu que pour diriger cette liste là et mettre peut-être un inconnu à Linguère pour diriger cette liste là ce serait prendre des risques face à peut-être quelqu'un boo xam il est beaucoup plus connu il est euh, voilà. et si El quitte le gouvernement après. les élections législatives. Mhm. pour devenir peut-être euh, certainement. Euh, président de l'Assemblée nationale, je le lui souhaite bien, mais ça dépendra, je ne pense pas. Alors, ou bien, et là, ce qui est sûr, c'est que daal il va euh, il va devoir choisir entre son poste de ministre et son poste de député. de façon man ce que j'en sais un peu euh, pour la coalition au pouvoir wala boog le parti au pouvoir ñoom seen parti dañu wax seen responsable yi. que ni par exemple boo dee maire. Mhm. bëgg a nekk député. Mhm. mais il faut choisir. da ngay choisir entre nekk député wala nga nekk maire. moo tax am na ci ay maire yoo xam ne actuellement nii les gens pensaient que dinañ nekk ci liste député wu Pastef yi nekkuñu ci. Mhm. man pour man loolu pam pam Mokhtar. c' est une excellente chose xam nga lan moo tax. man dama gëmul benn doomu aadama. war a nekk lépp. man dama gëm ne kii mën naa nekk ci dëkk bi nekk fi maire. li liggéeyal dëkk ba Georges dëkk ci même dëkk bi que yow. mais nekk député wu dëkk bi. député wu réew mi. di waxal waa dëkk bi di waxal waa réew mi mais su fekkee ne yow yaay nekk maire bi yaay nekk député bi par fois nga nekk ministre nekk maire. am na ñoo xam ne dañu nekk DG de je ne sais quoi président de je ne sais quoi mais dajale ay kii ndombal tànk yu dul jeex. loolu li ko leen rek lay jur mooy nga am salaire yu bari ak ay kees yu bari di jënd nit ñi rek di di joxe xaalis. Mm-hmm. c'est tout mais bu fekkee ne fexe nañ ba les responsabilités la le le personnel politique. Mm-hmm. mu gën a divers responsabilité gën a bari mais pour man c'est important beneen bi mooy. Euh, la réforme de de Macky Sall bi mu defoon ci mairie yi. ba ñuy fal les maires au suffrage universel direct, direct oui. la réforme n'a pas été assez courageuse de mon point de vue mm-hmm. c'est-à-dire que demuñu jusqu'au bout mm-hmm. parce que c'est une bonne chose ñu ñu ñu élire maire bi au suffrage universel direct mm-hmm. mais dañu waroon a sóoraale ne su maire bi euh, démissionné wala mu faatu wala ñu fal ko ministre comme comme di dal ñoom Birame Souleye yooyu après ñu ne qu'est-ce qu'il va faire am na réew yoo xam ne dañuy organiser waat élection tey jii man gisuma benn problème pour que Birame Souleye à Thiès lan Thiès Nord xaw ma mhm. bi mu fa jógee au lieu que ñu bàyyi le conseil municipal mu daje fal un maire boo xam ne du du am même légitimité bi que Birame Souleye mhm. parce que Birame Souleye suffrage universel direct lañ ko fal ki ko remplacer ñu fal ko suffrage universel indirect mhm. parce que ay conseil ñoo daje fal ko tey jii mënoon nañu organiser une élection de même que Ousmane Sonko à Ziguinchor de même que Ousmane Sonko à Ziguinchor tey mënoon nañu organiser une élection à mhm. fal maire bu bees am na ci réew yoo xam dafay am boobaa duñu ni kii moo ko fi teg mais askan fi teg eh, su boobaa kenn du reproché ne dañ ko fal ministre mu bàyyi waa dëkk bi bàyyi na waa dëkk bi waa dëkk bi dajawaat nañ. fal keneen. voilà parce que boo gisee cette réforme là pour l' élection du maire au suffrage universel direct xam nga li ma la doon wax le détournement de vote moo ko indi woon. parce que dañu jàppoon que ne temps boobu liste lañu doon fal rek les les présidents nu mu ñooy daje. élire seen maire parfois sax maire est inconnu. Mhm. bu ñuy bu ñu ne Moustapha Diop mooy nekk candidat bi ñu dem ba si biir bu ñu bu liste Moustapha bi gagné. Mhm. conseil yi fal peut-être certain euh, Didier Yu. Mhm. population ne mais ñun donc on a trompé on a mhm. on a détourné notre vote parce qu'on avait voté pour Didier Yu on avait voté pour Moustapha. mais duñ si mën dara. souvent sax souvent président de la République moom mooy def loolu. parce que mën naa jox exemple Colobane. Euh, ba ñuy installé Seynabou Wade bon population Colobane ba ñuy doon tànn moo di ba jëm nañu tànnoon mais conseil yi euh, Seynabou Wade. mais mais mais ça ça tout le monde. sait que président bi ko sax la la manigance se passe au niveau de des des patrons des partis politiques. Oui. d'habitude ñooy imposer sax diw mi mooy nekk le maire. on impose ça aux aux mm-hmm. donc les populations parfois da gis euh, commune boo xam ne les populations se trouvent avec maire boo xam ne bëgguñu ko. Mm-hmm. te mënuñ sa dara aussi parce que là c'est les c'est qui l'ont élu donc on en arrive à à une à les maires maintenant au suffrage universel direct ñi nga xam ne yow booy voté ci élection si sa sa commune di nga xam ne diw mii bu gagné mooy nekk mooy nekk maire xanaa mu dee wala voilà mu am ab beneen ndombal tànk bi nga xam ne wala incompatible yoo xam ne ça le pousse à démissionner mhm. loolu moom te là également le la réforme devait aller plus loin comme ni ko Moustapha suggéré la réforme devait aller plus loin en disant que au cas où maire bi démissionné mhm. wala mu am lu xew mhm. en cas de euh, nu nu tel sax la euh, comme comme la xew à Thiès par exemple ak Birame Souleye au lieu ñu ne les les na nañu rassembler les les les conseillers mhm. ñu voté parce que là également conseiller bu ñu voté tout le monde sait que euh, parti bi nga xam ne moo ëppale ay ay ay conseillers si biir commune si biir conseil municipal bi mais ñooyu ñooy gagné élection yi forcément te loolu taxoon na ba la dame la bu nekk Padois euh, bañoon na démissionné parce que xamoon na mën a jiyee oui euh, bu démissionné conseil bi bu euh, tànnee boo moytul mairie bi ñoom dañ koy ñàkk oui ah, eh, des comme ça mhm. des des cas comme ça mais li gënoon yomb par exemple il faut il faut il faut il faut peut approfondir même cette réforme là de telle sorte que ñu mën a ñu mën a aboutir à ce à ce niveau là cest dire que maire bi bu demee rek na population bi jógaat ñu ngi koy ce n'est pas compliqué mais au lieu ñuy jógaat li gën a yomb est-ce que du bu ñuy tànn pré euh, lu mu tudd maire bi euh, ñu tànnaale aussi euh, at juin ku jë élire leen aussi à l'université directe. waaw waaw waaw bu demee rek keneen remplace. bu demee keneen remplace ça ça aussi possible. waaw loolu possible. mais bon euh, tel que nu muy demee nii ce n' est pas le cas. Mhm, mhm. mais Sénégal il faut ñu ñu ñu banaliser élection Pape. li ngay wax nii xam nga élection ñun liñ ko liñ ko élection c' est une fête de la démocratie. Mhm, dañ ko war a banaliser même dans nos quartiers là chef de quartier sax mën nañu organiser élection. ku dëkk ci quartier bi am fi euh, je ne sais pas facture la ñuy jël pour wane ne fi nga dëkk yooyu am en tout cas voilà nga ñëw ñu toog Georges bëgg a nekk Ndiir bëgg a nekk ñu ne dañuy voté ñu voté ku gañ a nekk chef de quartier mais yooyu def démocratie proximité la mhm. démocratie euh, expression du peuple la mhm. à tout moment le peuple doit pouvoir s'exprimer man moo tax may wax très souvent que ni man lii ñu def suñu démocratie yi mooy da ngay fal un président mhm. man quelque part maintenant est-ce que ça pose pas problème il faut faire de que les populations puissent avoir la possibilité de se prononcer à tout moment mm-hmm. yaa fàttaliku bi fi euh, ñoom Abdourahim Agne lancé seen kii boobu mooy la xewoon Ukraine Euh, euh, la, la manifestation des xawma ma orange. La, révolution orange la révolution orange. Mm-hmm. mais ñoom du temps de Wade dañ leen jékki-jékkoon ne dañuy invité sénégalais ñoom ñëpp ñu génn ci mbedd yi. Mm-hmm. di toog pour wax Ablaye Wade ne ko doy na. mais Abdourahmane xam fu mujjee. kaso kaso. te pourtant dans d'autres démocraties les gens ils font ça. génn ñëw taxaw ñëpp ne kenn du ñibbee seen kër kenn du añ kenn du reer fii la ñuy toog pour wax ñi ñu jiite ne doy na sëkk. Mhm. Mhm. l'essentiel mooy qu'on le fasse dans la paix. Mhm. donc il faut de euh, euh, euh, kii ni ñu koy waxee sax banaliser l'élection au Sénégal xaw ma ba xam banaliser c'est le bon mais fexe ba mu bañ a nekk quelque chose d'extraordinaire mm-hmm. un maire dañ koo fal mm-hmm. yàlla def un régime changé régime mën a changé sax mm-hmm. le président de la République ne ko soxla naa la pour nga nekk ministre mu accepté nekk ministre ñu ne ko da ngay démissionner maire bi d'accord na démissionner mais bu démissionner nañu jox ñun population yi ñu tànnaat beneen maire effectivement mais loolu yëpp mënoon na am euh, bu nekkoon élection législative yi anticipé wuñu ko euh, ay projet de loi ñu voté ko ci assemblée nationale malheureusement homme politique yi rek euh, seen i ay mbir moo tax